sa démb xam sa tey sa démb xam sa tey xam une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. di waxtaanee bis bu màgg boobu di talaatay ndeer ndax ku xam waalo xam ne waalo réew mu am jom la. xam ne bi fukki xarnu ak juróom-ñeent biy dugg. di dox ku bëgg mbay mu naat demal waalo. waalo nag naat na ba ku ne teg ko bët réew yi ko wër digaloo ak moom amoon nag gis-gis bu ñaaw ci ni France doon waajalee boppam ngir teg loxoom ci alalu waalo ca dëgg-dëgg mën nañoo fàtte ne bragu waalo Amar Fatim Borso si woon na ak tubaab yi ci teewaayu kii nga xam ne mooy gouverneur Julien Désiré Smars ci juróom-ñetti fan ci weeru mai ci 1819 juboo juboo gi nag mooy lenn ci suuf si tubaab yi mën nañ faa bay juboo gi nag mooy mën nañ faa def ay taax yoo xam ne seenug larme dafay ne waaye naar yi nga xam ne naari trarza la ñoom ñi nga xam ne dañ daan song ka daan moomoon foofa ëppoon fa doole boole nag lépp luy jaay daakaande ñoom ñoo ko moomoon ak njaayum jaam ñoom nanguwuñu woon bàyyi waalo muy dem tubaab yi du ko yilif ndax tubaab bi booba toog nañ ndar almaami bi ca Fuuta moom ni France bëggee toog ci ndar ba samp fa tànkam xam na ne dana dox ci digganteem ak li mu doon bëgg mooy ñëpp nekk jullit looloo tax naari waajuñu ko dañoo jég rek jël seeni gànnaay bett barak Amar Fatim Borso mi nga xam ne daf ne woon moom day dakkal galak gi ñuy fay muy impo bi waalooy fay naar yi ñaar fukki fan benn ñaar fukki fan benn ci weeru septembre 1819 naar yi dal ca kaw caagaar mbettum caagaar lañ ko tuddee fekk baraak ak kenn ci waa dëkkam rek a fa ne ñu dal ci seen kaw lakk dëkk bi baraag ñu bett ko gaañ ko ak ñenn ci ñu mu àndaloon mbettum cagar moomu nag lamtooro bam jàllee dafa taxaw ne moom it day nangu dagana waaye booba am na mbooloo mu taxaw muy ñii di Brakna yi ñii di Trarza ak Fuuta ak Kajoor ne ñoom ñépp dañuy ànd ngir tubaab bi génn waalo ndax mënu nangu tubaab bi di moom waalo cey bii bi sa màgg juróomi fan ci weeru mars 1820 Trarza yi ñoom ñoo jiitu bett ndeer dal ci seen kaw te booba xam ngeen ne ndeer mooy péeyu waalo ñu daal di nag ànd ak ñenu àndal dal ci kaw waalo bi ñu dalee ci kaw waalo nag fekk na booba Barak Amar Fatim Borso ma nga ndar di faj ab tànkam ana ko fa ne woon doomam ju ñeme ja yërim bañ mbóoj daal di jàkkaarloog ñoom waaye ñu ëpp ko doole dal ci kawam biñ dalee ci kawam nag ay jàmbaram wàññiku ñu bari fekk na leen ca góor ña ña nga ca tool ya ñii ñanga nga nappi jigéen ñi na ñoom duñu toog dañuy bokk ci xeex bi ñu daal di xeex xeex bu metti xeex ñi nga xam ne dañ leen bëggoon a song bëggoo leen defi jaam waaye xam ngeen bu ngànnaay doyut ay jàmbaar doyut du yomb say noon yi la song nga delloo leen ginnaaw waaye gis ngeen ba geer ba jeexee ñu ne dangeen ngeen ñu moom de ci seen xel waaye du ngeen ñu moom ñu doon seeni jaam jigéen ñi nag ne déedéet duñu nangu mukk doon ay jaam ne déedéet duñu nangu mukk ñu jéggi dex gi dem fa dooni jaam ne déedéet duñu nangu mukk ñu sore leen seen askan ñu dem fa di liggéeyal kenn ñu ne mukk du am keroog loolu la jigéen ñi waalo wax ana leen jiite woon mooy Linguère Fatim Yamar Xuryaay Mbóoj waaye keroog jigéen ña fiitu yëkkati seen bopp siggi topp ci ginnaawam ne ñoom de dugg ci néeg bu mag bi nga xam ne fi la barak daan wàccee ay ganam ay kilifa taal seen bopp moo leen gënal naar bi jël leen yóbbu leen def leen di jaam ña nga tàncaloo ca néeg ba ma ngay tàng ñuy muñ ña ngay lakk di dee te kenn yuuxuwut ña ngay lakk di dee ba jeex tàkk waaye moo leen gënaloon keroog doon jàmm lii nag la waalo wax lii la talaatay ndeer wax tey talaata jooju anu koy fàtte talaata ju kenn dul fàtte ca ndeer 5 mars la ñu wax 1820 bis booba jigéen ñi wane nañ gàmmaar ne jigéen bu jëlee bakkanam jaay xam na ne ngor lay sàmm ngoru mbokkam ngoru askanam kon nag jigéen ñi laataa ñuy def loolu fexe nañ ba làq seeni doom ana gone yooya ba nu màggee nu nu mel xanaa am jom am fit ba mel na seeni ndey bu ne njëmbat mbooj nga xam ne loola am na bu ne ndate yàlla nga xam ne loola am na kon lañu jiwoon ca néeg ba taal seen bopp sax na ba te fuuta te danañ ci ñëw ci waxtaan waaye gis ngeen ba dëj ba jàllee ba ñu woppoon faju ba ñu defaraatee néeg ya ah Barack Yérim Mbañik Mbooj nag na du seetaan muy sedd ca jóg nag dajale jàmbaar ya fa des ne ña ci kawam dana dal ci seen kaw keroog nag la jóg rek dal ca kaw Trarza Barack Yérim Mbañik nag dafa boole l'armée waalo yi ànd ak ñenn ci Trarza yi ànd it ak njàppale gouverneur Smarts daal di nag dugg xuus ci biir Trarza xaaju Trarza mu tëral ko taal bi ma ànd ak tubaab yi nag mu yéeg ci kaw Fuuta ca Jaalowaali fa almaami ba nekkoon loolu daal la waalo def waaye waalo nekkam yombul waaye waalo musta nangoo nërmeelu loola nag moo tax kenn du fàtte li jaar jaaru waalo limuy muy rëy yépp bis bii di ndeer anoon ci mën a jàpp mooy ndeer mooy bis bi bakkan ya bis ba jigéen ña taalee seen bopp bis ba ñu bañee ku àgg ci seen kaw keroog nag ba du bettee góor ña bett leen fekk seen buur tukki ña ca des xeex ba noon yi jéggi leen jigéen ñi daal di dëju tëju taal seen bopp taal seen bopp ngir ñu bañ a nettali nettali bu ñaaw taal seen bopp ngir way wi bañ a ñaaw taal seen bopp ndax bañuñu woon lenn lu dul ku leen xas ku yàq seenub der bañ jaam baray sa bopp ndeer a ngi noonu ndeer mooy sébbu ba ñu taal muy sébbub jom boo xam ne kenn du ko fàtte ba tey ñu koy nettali kon bu ñuy sargal jigéen jigéen ñi àdduna nanu sargal waa ndeer ndax nag bu ndeer tàkkul woon bu jigéen ña deewul woon xëy na nettali bi dana gën a ñaaw waaye waalo fa la jom fekk baax waaye bisub ndeer 5 mars 1820 keroog ca la jigéen ña taaloon seen bopp te ba tey ñu ngi koy nettali ndax jigéenu waalo mooy jigéenu senegal mooy jigéenu Afrique xam sa démb xam sa tey talaatay ndeer xam sa démb xam sa tey di waxtaan leen Goethe Institut may ànd ci ak archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut